njiitu réew maa njëkk a jël kilifa diine tollu Cheikh al Islam tuddee ko université boo xam ne c'est une université publique muy ISAM université de Sine Saloum Cheikh El Hadji Ibrahima Niass moo tax ren na décidé ne il faut que éducation nationale ak gouvernement bi ñu financé léegi daara yi ñu ngi koy ci école publique yi ren ñu tàmbali ci jël enveloppe bu juróom-benn milliard pour ko si daara yi moo tax daara yi ñu dugg tam l'autorité de gouvernement les préfets ñu am un recensement recensé leen xam gox bu ne daara bu fa nekk ak fu ñu jàngale nag laa wax ak ku koo xam ne sëriñu daara mu nga fa di tàggat xale su ko defee ñu jàppale leen jàppale leen ci dundu xale yi jàppale leen itam si subvention maa ngi am mbokk yi ci liggéey bi nga xam ne suñu xarit Baye Cissé ci sa ndigal tàmbali na ko euh, mooy esplanade bi waaye projet bi gën yaatu loolu kon damay ñaan gouvernement bi dem ñu bàyyi xel ne dina bàyyi ci développement gox bi ndax goxu cosaan la goxu diine la gox la bu recevoir àdduna bi yëpp fii boo fi ñëwee dañ fi dégg anglais dañ fi dégg asania fii boo fi ñëwee dañ fi dégg awsa dañ fi dégg làkk bu nekk si àdduna parce que mooy Cheikh al Islam